noo ngi sant yàlla noo ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindéef yi julli ak sëlmal yàlla nekk ci sayiduna muhammad moom mi nga xam ne mbooleen yàlla ñoo ñi yónni ñëpp moo leen gën a tedd noo ngi seede tey woolu tey dëggal na amul benn buur boo xam ne jaamu nga mën naa jural njariñ ki koy jaamu ñàkk gaa jaamu mën a juraloon ku dul yàlla moom rekk la amul kenn ku bokk ak moom nguuram gi seede soosu nag di seede soo xam ne képp ku ko seede ngay nga nga nga nga ta ta ta ta ta ta ta sellal ko ci sa xol yaa ngi seede wéetu borom bi tabaraka wa taala kon nag noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne sayiduna muhammad day mooy tànneefu yonent mooy tànneefu suñu borom ci biir mbindeefam yi mooy ki mu tànn it ci biir jaamam ñi nga xam ne ñooy jaamam ñi ko gënal mbokk yi ginnaaw loolu suñu xutba pe ñu ngi ko bëgg jëmale ci waxtaane ay kàddu yu néew ci Cheikhul Xadim waxtaane ay kàddu yu néew ci ab wooteem waaye woote boobu nga xam ne ci la doon woo jaami yàlla yi te woote bi làmboo tawféex làmboo jàmm ak texeg àdduna gu àllaaxira ñu méngale ko tuuti it ak woote yi nga xam ne moo am ci jamono yi te nit ñi di ko woote jëmale ko ci seen bopp waaye nag di ko woote ci turu Cheikhul Xadim ak di ko woote yi ci turu aw yoonam cheikhul khadim Xadim bi yàlla la boo xamne yàlla daf ko tan jox ko xet wi ngir mu doon seenu taxé ndax Muhammadul Busri day wax ne wa idha sahara al ilaahu unasan li saidin fa innahu musa'ada nee yàlla bu namé ak taxé ci aw xet day tan kenn ci ñoom taxel ko ba nopi jël ko def ko muy seen njiit ñu ànd ak moom topp ci ginnaawam su ko defee ñoom ñëpp dañuy texe ci biir texe jaam boobu nga xam ne moom la leen yàlla tànnal xaadimu rasul nag dafa bokk ci jaam ñi nga xam ne yàlla daf koo tànn jox ñu ko ngir texeel ñu kon liggéey boobu mu doon liggéey ak taxawaay bi mu amoon ëpp na ñu di ko ayibal ak di ko xajamal ba noppi di wax ne ab taalibe nga euh, ci yoon wi nga nekk mbokk yi Cheikhul Xadim bi mu ñëwee jamono dafa jël boroomam def ko muy wéttalam Seexul Xadim ci ndawam ba ni mu xëyee taxaw ne yàlla nee na naa béral nit ñi ne leen nañu ñëw wéeru ci man kenn mësu koo gis mu nekk ci lenn lu dul yàlla moom Seexul mbokk yi mësta soxla ci lenn lu yàlla mësta wittali koo kenn ku dul yàlla ndax daf daa wax ne wa man ta'annasa binnaasi hajabahu nasu an rabbin nas neena kep ko xamne xam ne nga fi yalla dem wettali ko nit ñi nee nit ñi danañ la galankor dox sa ak yalla mi nga xamne moy borom nit ñi neena motax man ma jéggi fi nit ñi dem jël yalla mi nga xamne moy borom nit ñi ma wettali ko ba mu jigi yalla mooma doon sama wetal yëmut ci doon sama wetal waye mu doon sama dëkkandoo ma tan ko def ko muy sama motax mu wax suñu borom ne ko anta wa ni'mal yow yàlla yaay sama dëkkandoo bi nga xam ne yow rekk yaa mat ab dëkkandoo yaa xayu yaa xayumu yaa jabaaru yaay aju dund ji nga xam ne dangay dund dund koo xam ne amutub àpp yaay buur bi nga xam ne danga fi sax dàkk bu fi ñépp jógee sa jëmm dafi des te képp ku nit wettalikoo mbaa mu dëkkaaleeg moom bis dana jot mu jóge fi bàyyi fi kooku wala kooku jóge fi bàyyi ko fi yow nag yaay ki nga xam ne ku la wettalikoo mu nekk ci àdduna dina la ko ak mu nekk bar sàq ñooyam fottalu wéttalam ngay doon kon nag bàyyi naa ñëpp te jële yow yàlla def la ngay sama wét wéttali koo gi koo yàlla ci la liggéeyee la yàlla ba yàlla gërëm ko tànn ko teg ko ci kanam xeet yi ba noppi digal ko ne ko wooteel wool nit ñi ñu ñëw wuy si la na nañu ñëw wéeru si ci ndax damaa def ci ak texe képp ku la topp texe koo koy Cheikhul Xadim moo tax mu ne nazan may yafalu ما يشاء العلوم ويمنها لي بكونه العليم نانا يالا ميغا خامني موي خمال جام بوكو سوب مولم خم خمي ام جارين تي ادنا ييب سوني بروم جوخنا مكو موي نزع ما يفعل ما يشاء العلوم كيغا خامني لوكو سوب مو ديف جوخنا ما خم خمي ادنا ييب وايي نك ويمنها لي بكونه العليم يمول تي جوخ ما خم خمي وايي بركه باغا خامني موم لا خم خمي لامبو صاح سوني بروم جوخنا مكو ندا خم خمو خم خم بو امول بركه امول كون يالا جوخنا ما خم خمي ام جارين وايي جوخنا ما بركه خم خمي ca loola ci la waxe ne wattu naa ci sama dënn xeeti xam-xam yoo xam ne sell na sellaay goo xam ne deesul dox ba fekk ko ci téere ndax xam-xam la yoo xam ne sama diggante sama borom rek la mu ne xafistu maa siina ani dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri kon yow mi nga xam ne yaa may lëggéeyal bul tay ci di ma lëggéeyal ndax man képp ku ma lëggéeyal yàlla fay la cheikhul xadim nee na aataani al muti bi jahil mustafa sala alayhi bi salaami barakatal quraani wal ulumi mi waxaada yumnaha ila taalimi sëriñ Tuubaa nee na yàlla mi nga xam ne mooy joxe nee jox na ma barkeb alquran waaye jox na ma it xam-xam bi alquran làmboo nee na jël na barkeb alquran jël barkeb xam-xamub alquran def ko ci sama njàngale moo tax muy bind di jox góor yàlla yi nga xam ne ñoo ko toppoon ñuy jàng di yegg ci yàlla ndax yàlla nee na yàlla moo jël barkeb alquran def ko ci mbindam cheikhul xadim di taalif ay ay ay xasida di ko jox ay taalibam ñu di ko jàng bu ñu jàngee xasida yi mu yéega leen fóot leen yeggale leen ci seen borom tabaraka wa taala mu ne taalif yi nga xam ne maa ngi koy taalif di ko joxe ñu di ko jàng di yegg ci yàlla suñ borom daf maa defal mbootum laa ilaha illallah ci biir taalif yi ila tawalifi yaqudu llahu asrara laa ilaha illallah nee na sekkereb laa ilaha illallah moom la yàlla jël daxañ ko ci biir samay taalif xaside yi may taalif di ci tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom di ko jox nit ñi ñi di ko jàng muy fóot seeni xol defar seeni jikko yóbbu leen ci yàlla nee na sekkereb laa ilaha illallah la ma suñu borom defal ci biir xaside yooyu kon ci la doon yeggalee góor yàlla yi nga xam ne ñoom la àndaloon mu leen yeggale ci seen borom loolaa tax mu ne nasaa lii walaysa minni yansaw wa inna nii bihi ximan wa mafsaw suñ borom li bax ci aduna bax ci alakhirah lépp jox namako ma ko walaysa minni yansaw te lim ma jox nak jamono du yag ba mere ma diko rikki wat jox namako ma ko jël xewal yim ma jox ak barke bim ma jox ak xam-xam bim ma jox ci la doone wëru wéeruwaayu kep ku bëgg fu wëru waye ci la doon laqatu làqatukaayu kep ku bëgg fu làqatu mune li ma wax nak limi reey reey zalika fadlullahi yutihi alladhi yasha'uhu wa qala li qulbi ludhi neena li ma wax li muy rëy rëy ngëneelal yàlla la loo xam ne daf koy def daf koy jox jaam bu ko sob man xaadimu rasul bokk naa ci jaam ñi soob yàlla jox na ma ko suñ borom moo ne ma wool nit ñi ne leen nañ wéeru si ci yow ku wéeru si yow mucc ndax muccukaay nga mu ne amara rab yi bi an usarriha bi an na nii malazun wa himan wa mafsaun nee na suñ borom moo ma digal ne ma leeralal nit ñi wax leen li nekk ci yow nee leen wéeruwaay nga làqatukaay nga fa man araadal xayra fii kiltay daarayni fal yarus bi koo xam ne bi bëgg na yiw àdduna bëgg yiw alaxira na ñëw wéeru si ci man xaadimu rasul ndax yàlla dajale na ci sama jëmm ji yiw àdduna ak kon kooka woote gi mu woo jaam ñi jëme leen ci yoonu yàlla daf caa am ndigalal yàlla kon nag képp koo xam ne dajale nga mbooloo di leen woo ne leen damaa am ndigalal yàlla ci woote ba ñu dajee nga woo leen ci sa bakkan ba noppi bëgg ko def ci turu xaadimu rasul ëlëk da nga dekk yaak ña nga andalon di caaxaan ñëpp da ngeen dekk dajé ci karam yalla tabaraka taala ta xaadimu rasul momi ngeen wote du ngeen ko teg ndax da da na wax mag ñi ne leen yowmal qiyam nit ñi bokku luñ doon def do nga ñoy gisé képp ku fi nekk di wuyoo sama tur wii di wote wo sama di wuyoo sama wote ba ëllëg nga dajé nga dem bis penc te daje woo faak man la la la tay nga gis ma fa ci yow la way du ci man lu mata xam la ndax fama nek ñama fay nekkal moy ña doon def lu melni lama doon def ko xamne ne li ma ci won nak bu ëllëgee dañu lay yobbu fa nga xamne la nga doon def ñoñu mom lañ doon def ñi yobbu la fofé ta fofu do ma fa gis nak ndax mo lu fa yobbu cheikhul ko wax kon nak ko xamne ne ci sa bakkan dajale mbolo tekko ci turu khadimur rasul ñoomit ñu and ak yow ci sa bakkan bu ëllëgee cheikhul khadim mom do ko tek bët ña andon ak yow ci sa bakkan cheikhul khadim mom duñ ko tek bët mbokk yi sëriñ Tuubaa nee na kullu muridin bi yelusu yasadu wa innahu min al adabu maadu nee na képp koo xam ne wéeru nga ci man danga taxe ci àdduna da nga taxe alaxira ëllëg yowmal xiyaam la ñu fay wax ci ay tiis ci ay metit ak i coono lépp ci àdduna ngoo koy dégg waaye doo ko teg bët léeg-léeg nag ab waxtaankat wax ko nit ñëpp fett su yuuxaloo ma ne dégguñ li wax de kullu muridin bépp murid boo xam ne yeluusu bi wéeru nga ci man ci teg sa tànk ci alquran ak sunna bépp murit boo xam ne wéeru nga ci man ci jub bépp murit boo xam ne wéeru nga ci man ci fonk julli fonk koor ak mboolem ponk ponki diine yépp yasaadu texe nga fii ci àdduna waaye wa innahu min al azab mubaadu bu ëllëgee yawmal xiyaam lañ fay wax ci coono yépp doo ko gis waaye nag koo xam ne dangaa ne ci sa bakkan ba noppi ne ci seexul xadim laa wéeru bu ëllëgee doo teg bët seexul xadim seexul xadim du la teg bët loolu lu mat bàyyi xel mbokk yi am na fii ci Saalum jëmm joo xam ne mbooloo mu mu àndal man xawuma fii ci réew mi ku ko ëpp mbooloo te day wax ci télévision yi di wax ci réseaux sociaux yi kaddu yoo xam ne ab sàmm sax waru ko wax juróom bu di ko yëkkati di ko teg ci kaw deru suñu borom tabaraka wa taala te nee na Cheikhul Khadim ay xas yàlla laa wax de xas di xas yónnante yàlla Muhammad nee na rasulullahi gënul kenn gënul nit ñi ndey gënu leen bàyyi gënu leen ub jur ngay wuyoo moo wax ci làmmiñu boppam bind ko ci xalimaam ne nabiyunal Mustafa suñu suñu yonente bii nga xam ne moom la yàlla tànn xayrul waraa nee na mooy gën ji mi def nee na yonente boobee xaradi yi moom mooy sama xaymam def man xaadimu rasul yow ki ngay wuyoo ni ab taalubeem nga nee na moom yonente yàlla muhammad mooy xaymam téefam nee na rasulullahi dong dong dong dong mooy gën mi def ci kaw suuf yow nga ne aw oh, seexul xadim ngay wuyoo ba noppi taxaw ne yonent bi gënul kenn weddi na julli ndax nee na julli wérut weddi koor weddi aj makka weddi joxe asaka ndax sikar soosu muy sikar fu mu toll moo ki taalibeem loolu lay layal waaye baatub laa ilaaha illallaah mbokk yi ku koy wax ci sa làmmiñ te taxul nga julli taxul nga woor taxul nga aj makka baatub laa la illallaah boobee mënut dox sa diggante ak sawara ndax yàlla bu la ko nangu lu mat a la afa tuminuuna bi baadin wa takfuruuna da ngeen a bëgg a jël diine gëm lenn li weddi lenn li déedéet suñ borom nee na fa maa jazaau man yafalu dalika minkum illa qisun fi lxayaat déegooy bil aqib yuraduna ila ashaddi al adab koo xam ne da ngaa jël ci diine lenn weddi la ca des la nga jël du tax ñu nangul la la ca la la la la nga maanaam li nga jël li nga weddi dana tax duñ la nangul li nga jël te nee na képp koo xam ne def nga ko da nga am gàcc adduna boo léegi yomal xam da nga am gàcc te moom weddi na lépp dégg naa ci làmmiñam wax joo xam ne nëbbu ko ndax bu bu ko doon nëbbu du ko wax ci télé nee na Cheikh Ibrahima Fall li tax du julli dugg na ci ne Xaadimu Rasuul doon ko ziyaara bi mu génnee fekk yàlla ca buntu néeg ba mu sukk tabaaraka wa taala subhaanallah nee na ma ne ko kii kana mu ne ma mën a man may may yàlla ma ne ko looy def nii mu ne ma sëñ bi da laay xaar mu ubbi ma ziyaar ko ma ne ko aha yow yaay digle fii nee na Cheikh Ibrahima ko wax de yow yaay digle fii julli ak koor ak ak añ màkk ak ko lu ne nga di ko digle ba noppi ñëw fii boof ci sama buntu nekk sëriñ bi di ko di di xaar mu ubbi ba nga siyaar si ko yow de li nga digle duutuma ci def dara nee na loolaa tax si Ibra bàyyi jullee koor ak lépp ndax nee daa fekk yàlla mu toog ci buntu nekk Seexul Xadim di xaar ana njabootu Cheikh Ibra gi fuñ nekk ba ñuy lii Cheikh Ibrahima ana ne lu tey lii ñu dindi ko te jëmm jii may wax kenn ëpp ko mbooloo ci réew li mu dajale ci mbooloo kenn xamul lu mu toll te bis bu set mu yak yàlla lu melni xeme bis bu set mu yak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam lu melni xeme mbokk yi yoonu cheikhul qadim yi jigen ñi sax dañuy wote fi la nit taxaw amé mbolo mu dul jeex dañ ma seexal dañ ma seexal di tofal ay mbolo ci seen ginaaw ba seexal jigen jël mbolo tofal ko ci ci ci ci ñuy sukk ci kanamam ay góor di raam ci kanamam di ko sujjootal di nuyoon nuyoonteeg moom muy bokk ak mom ay jotaay di fecc ci seen bir lépp nak ñu bëgg ko wër ci yoonu Cheikhul qadim waye lima wax rek am képp ku nekk ci lu ak la Cheikhul qadim nekkon dang ko tuddo ba dé dem sawara wallahi ma amul ben werante Cheikhul Khadim caaxaanul caaxaaw caaxaanul woon am na fii jëmm ju ñu wax Cheikh Mbacké saxu barki dem la tok ci télévision yi tay tay ji mi ngi dajale mbolo fi ci dëkk bi la dëkkon nekk ci yoon wi bam mu nag mu ne yoon wi yoon wi doyatu ko dajale mbooloo ma nga ma nga Ndakaaru tey jii di woote te fi mu ne mboolem julli jurom yep neena ben julli bu don ñent rakka amut julli yep ñaar rakka la rasulullahi mi yalla yoni ci ñun ñewna ba fi suba ñaari rakka la ko dum julli te mom la digle tusbar ñent la ko do def takusan ñent timis ñet ge ñent mom wedd na mboolem julli ñent rakka yep neena julli yep ñaar rakka dina suba ba ge ñaar rakka la koy julli motax dana di faral di wax ne nañu jangal ndaw yi nañu len yar wote bi bari na li yàq bari na te buñ leen jangalul yeruñ leen day lii di ñew di dugg ci rew bi duñ ci mucc mukk kon nañu taxaw ci ndaw ji mbokk yi cheikhul khadim nit ñi procès lañ ko jàppe procès bu ñu ne dañu tabax ab hôpital nga gis mbolo jóg def ko procès lek ci alal bu ñu nee dañuy tabax yoon wo xamne ne dina jóge ndakaaru jëm si Touba nga gis mbolo taxaw fassé yéene koo dunde buñ né dañuy tabax ab kay fi ci dëkk bi nga gis mbolo taxaw né dañ koy dunde mbokk yi cheikhul khadim nit ñi procès lañ ko jappé buñ né julli won na ñaari rakka ci biiru ndar ci biiru ci ci biir biiru gouverneur ñi né dañ koy maggal ñaari rakka yooyu bu waxtu wam ko defee won jotté ñu dem julli fa ñaari rakka tay ji mbolo ngi taxaw ñaari rakka yoy dañ koy dunde julli gi mu julli won ci geej gi nga xamne tay ji ñang koy ñang koy fété ndakaaru diko magal tay ji mbolo gi taxaw diko dund cheikhul khadim nit ñi procès lañ ko japp télévision bi sax bu ñu dajalé mbolo ne dañuy waxtaan ci cheikhul khadim yow mi nga xamne ya ya organiser waxtaan nekk ci biir télé bi da ngay dem wuti ay sponsor ñu sponsorisé waxtaan yu fay la ci alal ju bari conférencier ya ngay wo ñu tok ci plateau ne dañuy wax ci cheikhul khadim da ngay ñom fay leen ay kasse ñu door ñu waxtaanal kon dañuy dunde sëriñ bi dañ koy dunde moo tax défi yi nga xam ne mu ngi ci yoonu murid doo doo dégg ñu tudd ko lii may wax nii conférence yi ngeen dégg ci yoon bi du ngeen dégg ñu wax ko ndax day menacer seen intérêt parce que ñii may joxe ñu baaraam ñëpp ñi ngeeki alal te dañ leen di joxe alal nit nag bu lay jox alal la nekk da ko koy layalal waaye doo ko yàqal ko Cheikhul Khadim du procès mbokk yi dafa ñëwoon bi yàlla la boo xam ne yàlla ko yebaloon ci mu ñëwoon ngir texeel ñu li mu liggéeyoon nag mënee su koo yàq waaye ñu ngi koy xajamal mbokk yi ndax léeg leeg nga wuyoo seexul xadim dem ci beneen béréb boo xam ne ña fa nekk duñu ay taalubeem nga melowoo melowoo xam ne ab jullit wërta mel nii waxuma laa ne ko mu ñi ki xamul moom day jàpp ne fa nga jógee ñëpp nii lañ mel dañuy jàpp ne sëriñ ba ngay tuddoo ña topp ña topp ci moom ñëpp nii lañ mel kon xajamal liggéeyu seexul xadim am na ñu koy def donte nag li def moom kenn mënu ko yàq mbokk yi sëriñ Tuubaa beesal yóne sunna si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi indi woon nee na nadaafatuhu min lahwi kulli tahrat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu nee na setuk yonent yàlla muhammad akuk laabam ak mbaaxam ci la ma yàlla setale man xaadimu rasul ci la ma laabale ci la ma defe nii ma mel man xaadimu rasul nee na benn yéene laa am ci àdduna muy beesalal yonente yàlla muhammad sunnaam si wa sunnatahu inshaa rabbi ubayinu lil mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgara wa inni ahmadu benn yéene laa am ci àdduna mooy yeesal sunna si yonente yàlla muhammad kon képp ku ngeen seen muy woote te ngeen seen mu nekk ci loo xam ne wuute naag la la cheikhul xadim nekkoon day woote jëme ci bakkanam waaye wootewul jëme ci yàlla wootewul jëme ci yoonu cheikhul xadim danaa ci tëje it benn baat lu mat a bàyyi xel la ndax dajale mbooloo di leen jox ay wird maa nga leen di jox ay sikar ñu di ko sikar nga léegi seenam xel ñu dajale alal di la indil ngay tabaxi kër di jëndi oto te jàpp ne ci àdduna sii la yem déedéet istabara alladina tubiu min alladina tabau suñ borom nee na gaa ñi nga xam ne ñu ngi woote ci kaw suuf te seen bakkan tax leen di woote bisa ngi ñëw boo xam ne ñoom ñi doon woote def seen bopp ay kilifa danañ dañ danañ seet wet ci ñoon dul woo bis dajee ci sama kanam kagn la moy wara awul azaba buñ démé ba jàkkaarloo mbugulum yalla mi xamné ne lañ jëm danañ sét wécc ci ñi nga xamné ne lañ doon wo ñom lañ doon woo wa taqattahat bihimul asbab sabab yi nga xamné ne doxone doxoon seen diggante yépp dara dog yaa ngi ñëw doon yeenu ay alal dina indi ñu dina dig aljanna di dig ngeeramal yalla te ñoom gisuñ yalla déggun ko seen aljana woru leen bañ koy digaate bu kerogee sabab yoy doxone seen diggante yépp suñu borom dana ko dog ñu xamné ñom doonu ci karam yalla dara su ko defee ña leen toppoon danañuy wax ne law na lanaa karratan fa natabarraa minhum kama tabarra'u naa bu ñu yàlla dimbale woon de delluwaat ñu àdduna yéen ñii nga xam ne yéen ñu doon woo ci seen bopp bañ toppoon leen ca kon danañ leen bàyyi nii ngeen ñu bàyyee fii ci péncu bi yàlla bi tabaaraka wa taala kon nag bala ñuy yegg ca jamono jooju mbokk yi na kenn ku ci nekk yow يونت يالا محمد تي لي مواتي وون لو لير لا موي موي موي سنه شيخ القديم كين تي نيكو ووت لا نده موم مو وخال بوبام ني يالا تي بوبام نينا يونت الله عليه وسلم